bismillahi rahmaani rahim قدر السحاب رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي مركزنا ينادي فلنحمل اللواء مركزنا ينادي bokk ñi déglu السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بالهمة الشماء والعز والإباء Sud FM seen rajo seen jotaay mu tudd Albidaaya ngeen koy am guddi ajum jot ci waxtu wi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 noonu lañ ci nekkee ak yéen boole kook laaj yi ñu bind ci email bi di albidaayatu arobas yahoo point fr bu ñu demee ba minuit jot ñu yëkkati xaaj boobu digtalaat leen tafsir xuraanul karim bi ñu amoon ay bis gi ñu génn buñ ci noppee ànd ak ñoom déglu alkitab noonu la ñuy àndee ak ñoom jotaay bi déglu rijaalun xawla rasul wala nisaawun xawla rasul buñ ci noppee déglu arrasidun 5 heures jot ñu déglu alxuraanul karim 5 heures ñu ànd ak mbokk yi ci almisbaax 6 heures ñu ànd déglu waxtaanu fajar yi tey di alxames kon fajaru ajjuma lay doon waxtaanu fajar yi day baaxoo amub tem tem bi mooy doon ilallahi allahi ibadallah maanaam jéego yi nit ki di jéggi jëm ci suñu borom subhanahu wa taala oustaz noonu la jotaay bi fas yéene tëddee مركزنا ينادي طلائع الشباب هلموا هلموا نرفع ذرى السحاب مركزنا ينادي طلائع jaajëf xaaj Mbàkke tabaarakallaahu kon 5h30 mooy almisbaax ولا تقل غدا غدا فإنما العمر الزمن ومن يعيد المجد من مركزنا ينادي إلا فتى الفتيان مركزنا ينادي ولا تقل غدا غدا فإنما العمر الثمن ومن يعيد المجد من إلا فتى الفتيان فشبكوا الأيادي مركزنا ينادي وأعلنوا للناس مركزنا ينادي فإن صوت kon nag markazuna markazuna yunaadi ci biir réew mi ak ci bitim réew ñëpp nañ ko wuy si tabaarakallaahu yunaadi fashabbikul ayaadi wa a'linu linnaas الناس فإن صوت الحادي سيبعث الحماس waaw tabaarakallaahu mu ñëw ñu mën a ñu ngi woowaa adduna si yëpp waa penc bi yëpp tabaarakallaahu te xam ne kuy woote ca kaw tey woote lu baax ñëpp lay wuy si albidayatu kon mi ngi nuyu baax a baax di wax euh, mati lay ca unité 1 asalaamaaleykum Siré Ndiaye ca Suprime salaamaaleykum Ndeye Fatou Dramé ca Mboro bil imaani wal islaami la waaw waaw Thiamou nga fële ca Pékin Binta Faye ca Toubatul la nekk madame Diop nekk ci Kër Massar Maymuna Guèye ci Thiaroye la nekk jàngalekatu tubaab la Maam Jaara Bousso Diouf nekk fële ca Fatick salaamun ah, nasruha nasruk kii Mor Ndiaye numéro 2 la tudd ma nga fële ca conseil économique social et environnemental wa salaamun li kulli ardin lil xayri fiha raid wa salaamun li kulli ardin lil xaqi fiha shahid salaamun nuhdii shawqan li kulli bilaadi muslimin salaamun alaaji Omar Ba nekk fële ca Caajaay salaamun Amin Ndiaye Diop nekk fële ca Noto salaamun madame Diop soxna Fat Diallo ci Kër Massar Penda Mbay Touré nekk jàngalekatu almaa nekk fële ca Ndar Ndey Ñang nekk ca Touba Maam Góor njaay ci Jama salaamun salaamun moo di mbàkke ndooy ci tuba alaaji Alioune fay douanier la mooy sunu séeréer ba màkk euh, docteur Abdoulaye Lam salaamun Alioune Faye kullu ardin dajja fiha Amin Ndiaye ci kër Daouda Modou sekk ci wala Mor Seck ci jogo madame Thioubou Maguette Sarr nekk fële ci parcelle salaamun maam Marème Ndiaye cité kër Khadim salaamun Moustapha Mbaye 313 salaamun Issa Gueye ci konoon salaamun ci ñaar ci ñaari télé nekk Moussa borom camion salaam wala borom camionnette salaamun Malay ci Malika la nekk yaay Umre Zena salaamun imaam Adama Diagne seew xaayu salaamun sofiyatu jóg fële ca cité ca Malika selil salaamun ndey Sofi Fall ci Cees la nekk us al oustaz Mouhamadul Habib ma nga ca Kayaar Ibrahima Cissé Baye Fall salaamun Aliou Ndiaye directeur SOSAD salaamun Serif Daouda Haydara Liberté 5 salaamun maam Xewe Ndiaye Kër Mbay Fall Ndiaye Diop nag fële ca Mbari Go madame madame Mbaye Sala Dieng ci Ali Imran salaamun cheikh Dieng ci Jurbel la nekk nekkoon ci al madinatul munawwara cheikh salaamun soxna Aysa ba ci mbaaw la nekk Mbaye Gajaga nekk ci nooto Malick Samb ci euh, bonnet rouge salaamun Adama Dieng ci Touba wax sa xalaat salaamun soxna Soda Dieng salaamun waaye tabarkalla soxna Zeynabu Seck Salaamun ak Mamor Dia Padoa Daawuda Fall ci Cees la nekk Salaamun maam Kumba Fay ci Wakaam la nekk Salaamun Ndey Faatu Jeng ci Cees ak Ndey Faatu Jeng ca Ndër Xadi Fall ci Faas la nekk Mor sekk nekk ci Pikin yéen ñëpp Salaamun waaw waaw Ibrahima ñang ma dem bitim ma nga Ibrahima ñu ngi koy nuyu soxna si mi ngi ci ndar tabarakallahu nogay tin ma nga fële ca Italie Mouhamadou Mbeng ca New York la nekk Codé Thiaw nekk ca Makkatal Mukarrama salaamun Pape Gallo ñang ci Italie salaamun Roger Diouf ci France ma xujja fay ci Argentine la nekk Iliman Lo euh, Euh, Ilimaan Lo nee na sunu goro la <laughs> ndax mooy sëriñu Ndey Mariam Ndiaye ci Espagne la nekk salaamun Dooro si la ci France salaamun Lamine Diène ci Canada Umarul Farouk fay nekk ci Maktal Mukarama Fat Jaxate nekk ci Espagne Malick Jaxate ci France la nekk Muxtaar Diop nekk fële ci Espagne salaamun sunu goro la xam naa na ngeen jàpp ci nopp bi ne ko sunu gora la sanu lay ma nga fële ca Côte d'Ivoire maam Njaate Ndooy ci màkkatal mukaram la nekk Babacar Mbeng nekk ci UNESCO salaamun Xaadim Jóob ma nga fële ca Brésil Ibrahima Fay ci almaañ la nekk Birane Diaw nekk ci Italie Omar Ndiaye nekk ci London Moustapha Sil nekk ci Paris salaamun madame Maam Dior Touré salaamun ibrahim Ndiaye ma nga fële ca Géedi ca Italie Mbaye Ndiaye nekk ci Italie soxna jóg jókku si soxo soxna jókku si soxo <laughs> salaamualeykum Ali Dia nekk moom nu ma saa Soumaré nga fële ca France te nekkoon ci Italie soxna Fama juuf ci Amsterdam la nekk Makhtar Ndiaye nekk ci Afrique du Sud Cheikh Gueye nekk ci Thialé waaye moom amul solo daal ma nga ci Italie Papis Dramé ci cap la nekk Baye a Baye Pape Xaali Fall ci Italie ci Brescia Tafalo nekk ci Espagne waaw Mansour Sy Diop ci gambi la nekk Pape Mor Diaw nekk ca Japon Moustapha Cissé al Argentine la nekk Malick Silla Malick Sill nekk ci France daam Diop ci Italie la nekk Mouhamad Diallo nekk ci Afrique du Sud moom tam Moustapha Jamil Gueye ci France la nekk si Sini nekk ci Italie ki ci mujj mooy Nenne Nenne Li wala Nenne Lay nekk ci New York moom tam salaamun salaamun waaw yéen ñépp rek salaamun tabaarakallaahu bilaadil muslimiina bilaadi kullu ardin dajja fiiha nidaa'ul haqqi saddaahan muhammaa wa dawwa thamma bisab'il mataali shabaabun Ibrahima Faye ma nga ca Allemagne Ibrahima Faye salaamun nafisatu bari ci Itali nekk nafisatu bari yow tam salaamun xadi siise ma nga fa ci Amérique xadi siise salaamun yow tam Issa ñu ngi ci France la nekk kon yéen ñëpp rek salaamun ci biir réew mi ak ci bitim réew. ginnaaw salaamun yooyu dañ daal dellu si waat ci Haj Mbacke tabarakallahu daal ne ko salaam wa rahmatullahi wa barakaatu. waaw xaw nañu yàgg ci nuyoo yi. waaw am na solo de ndax xaw yaatal ñoom tam. <laughs> macha allah te bëgguñu kenn tabarkal rek. wallaay wallaay des am na solo ñu baree bari ñu ngi ngi des sax ci suuf ñoo xamante ne ñi ngi bind fépp ndeysaan bëgg a bokk ci bunt yi ubbeeku yëpp bëgg a bokk ci salaamun yi xanaa ñu doyloo ñooñu rek ndeysaan ndeysaan <laughs> ñu doyloo ñi nga jot a jukki ñu ma ko ñu ma ko baaxoo baxee ku leen bëgg a jukki ci bi boo muy tudd bët dana sett lu mag ndeysaan macha allah tabarkalla tabarkalla tabarkalla na ngeen def ak coono yi noo ngi góorgóorlu baax baax sëñ Mbàkke ah alhamdulilah laay ndeysaan macha allah naka réew mi réew mi de moom sëñ hmm. am réew la de hmm. am réew la de ah. am réew la de. ñu ngi suñu réew mi <laughs> wallaay am réew la oustaz. am réew dëgg la. wallaay bari nay benke ñenke de moom. munu fee weesu. waaw li suñu réew mi. Mhm. nekkul ci menn réew. dëgg la waaw loolu moom. Mhm. ñëpp xam ne li suñu réew mi. Mhm. nekkul ci menn réew. waaw lu tax loolu. ñun dañoo spécial. ñun dañoo spécial. ñu spécial. te spécial hmm. rek tabarkalla. loolu lañ fi ñu war a liggéey duñ fa liggéey. dañuy wax rek. man kay lu ñu mooñe noonu bañ bañ mel noonu laa xamul oustaz. waaw xam naa li ci di moom ci njiitu politiciens yi la nag. Mm-hmm. Mm-hmm. ñooñu wommate noonu. waaw a ah, Sine Fani. waaw waaw. min ummati. waaw isaa salahu. salahu naas. lum ca teg al. al umara. al umara wal fuqaha jeex na nee na nu penc mi mel. Mm. waaw. politiciens lañ ko teg sëriñ si. allahu akbar waaw. c'est moo tax ñoom kon dañ leen war a tànn. waaw waaw dañ leen war a tànn bu baax baax daa mel ne ndax ginnaaw ñoom fi ñu jëmale bopp saxaar gi fa lay jëm wala bopp gaal gi gannaaw réew mi la ñuy wax fa la gaal gi di jëm dana doy waar moo tax macha allah loolu da yonent bee ko jàngale woon dëgg la dëgg la ko yàlla yónni woon ci noonu la ko waxe woon de wallaay wallaay waaw man xëy mel nii nu mel dëgg la oustaz tubarkàlla hmm. naka naka korite gi waaw alhamdulilah ja jàll na ci jàmm hmm. ak euh, tuuti benk ñenke tuuti jafeñ jafeñ dëgg la de waaye alhamdulilah jàll na ci jàmm hmm. Euh, nan ko sante woon organiser nañ ko noonu. Mhm. ña ko doon teewlu ñëwoon nañ fa. dëgg la waaw xool nañu def. Mhm. bañ ko defee nee nañu nii baax na. waaw góor góorgóorlu nañu ci daal. Mhm. waaw taxaw ci suñu taxawaay. fexe ba ku ñëw ñu sant la yooya mm-hmm. nga dox ca yooya mm-hmm. ba ni julli nga jeex mm-hmm. waaw alhamdulilah masha allah ah, tubaarkàlla noon de la amee ren daa mel ne yëf yi jël na ci wàllam li tere woon rassemblement yeeg ndaje yu baree bari daal ba ci koor gi ba ci koor gi itam feeñ na ci waaw feeñ na ci kay feeñ na ci de ah. feeñ na ci ndax man dama ne woon léegi euh, jàkka yu mag yi mm. organiser ko dana jafe yeneen jàkk yi nag comme suñu jàkk yi moom organiser ko góorgóorlu nañ ci daal mhm. waaw góorgóorlu nañ ci ba macha allah mhm. jàpp nañ ne réussir nañ ko dëgg la waaw dëgg la mhm. macha allah muy lu am solo donte itam àndante na ak ñaari koriteeg yi nga xam ne moo ci aju daa mel ne loolu moom awa muñ dànki jeexal ko dañ cee doyalagut ah dañ cee doyalagut ñun hmm? wolof nee na hmm. xam ne feebar nga taxut a faju dëgg la yëg ne feebar ngay tax faju hmm. yëg ne feebar nga mooy tax a faju waaw waaye xam ne feebar nga. Hmm. du tax a faju tey masala mi doylaguñ ci. Hmm. bis buñ ci doyalee. Hmm. bu ñuy xëy muy dañ. ndeysaan comme doylaguñ ci nag bu ñuy umee tey bu ci ëllëg saa um. lan moo tax doylaguñ ci dañoo gisagut lu muy wàññi wala dañoo jàpp ne ni mel nii baax na. Ah. wala lan moo xew. loolu laa yaakaar. ah doy na waar de. compliqué la lool ndax masaayu xaw min indef xaw min waaw. ki nga xam ne ñun ñàkk nekk benn dérangé wu ko. Mhm. du ci xëy du ci gon. dëgg la dëgg la. ñu nekk fi ñun rekk di coowaloo te mëtaguñu fukki nit ak juróom. wallaay. loolu rek la. moo xam ne bu ñu xëyee mën koo rek la balaa hmm. ngoon jot. Hmm. Hmm. waaw. waaw lu ñu def lu rek la ko boobaa wàcc nañ ko daanaka. jeex na wallaay. moom moo tax ma ne léegi yëgaguñ ne dañoo feebar. dañoo xam ne dañoo feebar rek. te masala mi léeg-léeg mu jur ay ñol-ñol yu métti métti ci benn ci. ndax xam nga ne jëkkër ak jabar nañ ci kër gi. waaw kii ne weer wi. kii um umut waaw sama njaay nee na woori nañ kii ne wariwuñ daa xaw a compliqué. waaw ndeysaan. léegi nag buñ ko defee ren def ko déwén def ko déwén jéeg commentaire tàmbali ci kër ga. dëgg la de. ak lu ñu déggoo déggoo rek commentaire yi tàmbali. dëgg la dëgg la te Sénégal nit ki buy def buy def ci commentaire wala muy werante. Mhm. bëgg laa yey jaral na ko. Mhm. non benn affaire la. Mhm. bëgg laa yey jaral na ko indi lu ne wala mu lu ne. bu la yeeyul. bàyyi la adduna ak àllaaxira. Mhm. bu dee yeeyu la. bu dee yeeyu la. waaw bàyyi la adduna ak àllaaxira. te fu mu waxati nag dana fa wax lool kooka bu bu bu bu bàyyi la yow tam adduna ak àllaaxira. da bàyyi ba noppi di la wutal ñu la bàyyi. di la ñu la bàyyi. ndeysaan ndax da ngeen wute ci masala. tey noonu loolu lu métti la. Mm, yombut yombut. ci loo xam ne bu ñu dajale woon commission yi. Mm-hmm. ne commission bi loo gëm mu wax. Mm. yéen lu ngeen doxal ñu wax. Mm. ñu tànn benn. billaahi ngir sëñ Mbàkke bu fekkee ma ñaari masal yi fa baax mm-hmm. ñaari masal yi ñu layal mm. werante moom du tax menn benn groupe yay morom ja loolu mënta nekk wallaahi ixtilaafu mataali mënuñoo mm. fexe ba tawxiidul mataali fekk ci leen dëgg la tawxiidul taali mënuñoo fexe ba ixtilaafu mataali fekk si leen mënul mm. am ñaari masala ñu ne ci pénc mi ñaari masala ñu ne ci pénc mi am ñoo xam ne fu mu dégg weer ci àdduna bi wori am ñoo xam ne seenu seenub gox la ñuy xaar léegi nag ginnaaw masal yëpp wér dañ leen dajale tànn benn. Hmm. loolu rek la kat ñun koy problème bi maam Oustaz mooy ñun kan moo leen dajale ndax ñun daa mel ni taxul ñu déggoonte noonu suñu biir. wax naa ne léegi ñii rek la mën a dajale. sëriñ si ba mën nañ leen dajale. Hmm. bu ñu leen mënut a dajale. Hmm. ministre de l'intérieur dajale leen. bu ñu nanguut a daje ki nanguut a daje. fa la xaajul na <laughs> waaw lësina euh, euh, waaw maanaam lësina maanaam ki nga xam ne nanguut a daje daal. maanaam ñu rey ko at xata a ila amrillah at tafee fa in faat mhm, mhm, fa na ko. fa xaatul lësi tabqaa rek. waaw at na tey loolu bu ñu ne woo ñëw leen. Mhm. commission bi nanguut a ñëw. ñu ne ko nag kon yow li nga nekk da nga koy bàyyi. te yaakaar naa bu ñu ko wote woon ñëpp ñëw ah. parce que ku nekk ni gëm nga sa masala mi nga nekk. ñu daan ci benn rek. wallaay de lu man de wax dëgg yàlla ñaari bu ñu ci tànn dérangé wu mhm. <laughs> dëgg yàlla. macha allah jamono ñooy. boobaa jamono ñooy. wallaay bi ngi noonu daa mel ne nag oustaz at mu jot loolu day mel ne day dox suñu digganteeg jeexital yi koor gi war a def ci ñun. ndax bu ñuy woor di bennoo di koor jàppe koor gi jàmm yàlla te bu ñëwee ba ci wari gi rek defe naa sax saytaane buy égaliser moom foofu bokk na ci fi ñu koy mayee ay occasion yu baree baree bari lu wér nga wax dañ koy may ay yu baree bari ci ñàkk dëppoo googoog ñàkk benn nga wax te te te bii xaw naa kii waaye bu tabaski bi. waaw tabaski suuf moom day gën a garaaw. Mm-hmm. moom day gën a garaaw. Mm-hmm. kon euh, seytaane mën na cee liggéey. Mm. ba bu ñu jeexal koor gi jeexal ko ci werante. Mm. est loolu jotut oustaz kon waa Daara laaj pouvoir maanaam laaj état ci boppam ba nga xam ne tey. mbir mi dootu dootu dootu doonati état ne man sama yoon nekku ci ndax eh, ñun ay layig lañ maanaam selang lu ci bàyyee ñu ko te yëpp mu ñu koy organiser jàppoo ne eh, mbir mi. Eh, ah, maanaam ngir ah, jëfandikoo diine day ànd yor pouvoir. waaw léegi léegi kay yëf yi. Hmm. mooy diine daa war a am ak kàddu. Hmm. ñu jël kàddu ga teg ci loxol kenn. dëgg la ndax pouvoir li am. Hmm. lu ñu toll la diine am ba teg ca lu mu amut. effectivement. pouvoir li mu am. Mhm. lu ñu talul la diine am. dëgg la ba teg ca lum tegul. dëgg la. Mhm. waaye nag xuwa boobu nga xam ne xuwa la naaima. Mhm. buñ ko bàyyee mu nelaw day nelaw rek. dëgg la dëgg la. day nelaw rek mais sax boo seetloo ba démb nekkee démb ba tey euh, diine fi mu daan am doole yépp maanaam sëriñ bi mooy doon buur bi ci misaal. maanaam sëriñ bi day boole euh, maanaam yor diine ji ak yor kàddu àdduna si ndax doole jooju mooy mën a tax mu appliquer li mu bëgg a appliquer. looloo doon dox. parce que dafa mel ne diine moom démocratie ni mu ko déggee ak ni diine déggee démocratie boobu. looloo doon dox sëñ Mbàkke. Hmm. ba 1920. waaw la xewi. ndeysaan <laughs> looloo doon dox ba 1920. waaw diine ji ñàkk pouvoir. diine ñàkk pouvoir. Hmm. nee nañ ma ko ñàkk ca Turquie. waaw. waaw ñu jël nag léegi dañu def dañu def fas lu diine ani dawla. la keroog la tàmbali. Hmm. fas dina am dawran ñu la ñu ñu layale ko mhm. laïcité mhm. loolu lañ ko layale mhm. ñu ne ñu firi leen ñu laïcité ñu ne mooy ku ne dund diineem ñu ne kon nañ wéy waaye bi ñu joxee ba ci biir xam nañ ne laïcité tekkiwul loolu tekkiwul ko dund déedéet tekkiwul loolu am na diine ju mu empêche laïcité li muy tekki mooy penc mu dul doxal seeni xalaat ci diine loolooy laïcité na diine maye waaw na na diine toog fële est-ce que mënut a doxal sunum penc waaw loolu lu lay teg dégg naa la bi ngay waxtaan ci jàkk yi ci fajarug démb mm-hmm. ci almisbah mm-hmm. ngay wax ci wàllu wax wax ba àgg si ci jàkka mm-hmm. ak itam rôle yam war a def waaye fi ne jàkk dañ ko na seppete ko fële ma dégg la nga ne nit ki day ñëw ci jàkk julli ba noppi defe ne ma nga bàyyi yàlla ci jàkk ja bu <laughs> dem ci marché bi doo ko fa fekk lay situ mooy def na nu pénc allahu akbar ne lii diine la lii àdduna la. jeex na allahu akbar tey lay cité. booy waxtaan ci wàllu sax politique. Mhm. boo waxee baatub diine ñu ne la déet. Mhm. booy waxtaan ci diine bi ak dugal politique ñu ne la déet. ñu ne la déet waaw. même nitu diine ki bu doon wax dara xalaatam ci réew mi ni muy doxee ci économie bi wala mu koy wax ci justice bi wala mu koy wax ci enseignement bi. ñu ne ko yemal sa place li fekk jaaxle wuñ dul la soxla waaw. buñ la jaax jàpp buñ jaaxlee nag. Hmm. moom daañu la soxla. oustaz loolu lan moo ko fii dindi maanaam volonté bi nga xam ne moo war a am ba nit am jur abu toll ne taxaw défendre loolu ci penc mi lan moo koy indi. li ko li ko war a mooy ñu xam ne dañoo am lu ñu bokk te mënuñ koo séddoo. Hmm. waa politique bëgg a dem ak seen bopp bàyyi fi genn wàll gi. Hmm. waa diine bëgg a dem ak seen bopp bàyyi fi genn wàll gi. buñ booree ñaari wàll yi raw ñëpp. buñ leen boolewut ñëpp raw nu. tey loolu rek la. Hmm. macha allah loolu oustaz baal ma taxawaay bi nga xam ne moom la ci sëñ Cheikh Ahmad Tidiane si amoon ku mel ne sëñ Cheikh Mbacke Gaynde Fatma radiyallahu anhum ma ñoom ñaar ñëpp amoon ko ci dafa mel ne taxawaay yooyu oustaz ci yee askan wi. dafa mel ne dañoo jékki-jékki tegaat yar bi ñu doon yee daal jàpp ne ab sëriñ moom sëriñ la politicien politicien la diine diine la. waaw aadaa bëri doole. Hmm. aada. kay aada. aada moo bari doole sunum réew. Hmm. ba ba ba ba nit mën naa yëkk ci dara mm-hmm. ba ñépp seen ko dëgg la aada di ko mabb di ko mabb ba loola demaat ci ba suufewaat mm-hmm. loolu lay yëf yi wallaay wallaay oustaz waaw aada nu topp topp yi bu metti dëgg la loo yëkkati ñu ne moom la dëgg la waaw cey ndax oustaz lu toll ne korité fi mu ne julli nañ ba jàll waaye xutba yi France daal di xëddeen waaw euh, te damaa yaakaaroon ne dafa war a doon loo xam ne dafa war a am jeexital bu mu def ci société bi waaw jenn tëll joo xam ne at mu jot ñëpp xaar xaar xutbab korité bi wala xutbab korité yi nga xamante ne day day jege nit ñi lool. te bu jenn waaye waxoon benn kaddu ci benn nangam rek. mu daj àdduna mu daj àdduna si. waaw lu lu waral loolu lan moo dox ci diggante message su bi ak ak tasaaroo. parce que amul jëntu amul jëntukaay bu jàllale message am. Hmm. day xaaraan jëntukaay rek. Hmm. ah moo ne ci koor gi defal nañ ko plateau bu ne. ah waaw waaw. xaa plateau xaaraan rek. waaw ndeysaan l'islam a xaaraane woon. ndeysaan ay eh, gore xaaral nag te soo seetloo waaw plateau bu ñu ko defal mhm. lu ne mën na fambam des lislaam waaw effectivement loolu bari na ci lool mhm. loolu waa seetlu nga plateau yi ren yi ni mu ni mu bindoo bu baax a baax daa mel ne daa jëlaat beneen phénomène boppam xam nga oustaz baal ma waaye li jiitu woon koor yee dañ daan wax ak théâtre kat yi sketch yi dañ daan wax waaw naan ñiy def sketch di fooyee diine ji ñiy def léegi yooyu wàññeeku na ñu ko am nañ ci conscience waaw léegi plateau yi nag mooy problème bi jeex na plateau yi nag plateau boo toog. waaw war a namp ci diine. waaw war a dundal sa ruux. Mm-hmm. war a dundal sa taqwa. Mm-hmm. defaraat sa jikko. Mm-hmm. ndax koor. nga toog di ko seetaan ba mu jeex. wallaahi la nga ciy dégg mooy borom mbaxana mu ñuul mi. ak borom mbaxana mu xonq meek. seet bi nga yor waroo ko yet sa dokk bi nga def nangam ak. billaahi ba ba mu jeex. wallaahi daa mel ak plateau yi ni muy guddee. waaw day fanaan daanaka. waaw day fanaan daa mel ne nettali ay xar baax dañoo neex ak ay ay xotti leer ak ay baatin. parce que dañoo defu dara. waaw te te daa mel ne yooyu itam ni mu ñuy neex neex yéemu ci rek lañ fas yéene. waaw mooy dañoo defu dara. Ah, boo defu dara da ngay bëgg. boo defu dara ah. ngay bëgg ñu la nettali dara rek. est nga toog rek di waaw. est-ce que su ko defee dara ñu lay nettilee. Mhm. moom ngay grandiru gan làqutu ci ginnaaw dara jooja. dëgg la pour dara am. dëgg la defe naa su ma la déggee même moo ji sax. Euh, bu ko bu ko yonent di def ngir dëgëral ab wooteem la. jeex na waaye day fekk day woote. waaw day woote. maanaam tey bu ñu doon waaw bu ñu doon waxtaanee Oustaz Alioune Sall bay nettali xar baax yu mu def ngir dëgëralewu nit ki moom lim daan woote la. waaye nekkut ñu nettali ko rek yéemu. léegi nag nit ñi dañuy def léegi boo ko nettali pour dëgërale ko lële. waaw ñoom ñu ne ko fa ñukk ñoom pour tera ter ter teral ter terloo ko. est-ce que. Hmm, pour terloo ko. Mhm. Hmm. waaw. Mhm. loolu rek la. te mag ñi mi ngi fi dégg ñëpp sunu mag ñi. ku ci nekk lem fi fekkoon bu yemoon ca loola. Mhm. ca loolu dong lay yem. dëgg la ba léegi ni mel lay mel. ñoom ñëpp kenn ku loo jéem de. ba nga jéemee samp nga dara. léegi joxal ñu ne yéen itam jéem leen samp dara. waaw hmm. yéeme na. yéeme na yéeme na loolu yéeme na nekk fii rek di ah, werante yéeme na loolu xat ga lay naa xat ga layut rek xat ga lay naa xat ga layut mm-hmm. ndeysaan bu kee waxee ba noppi kay ñëw wax te kat sañ baaxee mm. manaaxib waaw gis nga saaba yi mm. ku ci nekk yunit bi laan woo tegal la ca loo xam ne waaw ñëpp dañ lay xool dëgg la de waaye jurul werante déedéet dañ koy kee gën le dañ koy nangulante rek jeex na wallaay aboubacar lañ ca daan teg wallaay as siddiq siddiq wallaay mu am ci lu bari ku ko xëccoog moom billaahi omar alfaaruux kenn xëccoo moom moom kenn ñëpp xam ne mooy alfaaruux Ousmane mooy zone rëy jeex na kenn xëccoo ko Ali baabul ulum <laughs> kenn xëccoo ko moom ñun ko ko toppee bañ jeex ñoom ñëpp nag macha allah macha allah ñëpp oustaz su ma la déggee plateau yi tey war nañoo mën a toog ne dañuy waxtaanee oustaz diw oustaz Alioune Sall ci misaal mhm. ñuy wax ay xar ba xam ba mu jeex te duñ ne oustaz diw lañ tuutal wala boog diw moom daa am benn may waaye dañuy jàpp ne tey kii la ñuy waxtaane ay mayam rek bu subaa ndax yàllaa toll noonu jeex na. léegi nag nit ki nit ki amul niveau boobu. waaw nit ki amul niveau boobu. Mm-hmm. boo waxtaanee baaxug sëñ Mbàkke Sylla la. Mm-hmm. moom danaan kon kii Oustaz Alioune Mbaye lay xas. dëgg la waaw mu koy noonu lañ koy daal di wëlbatee diw la bëgg a wax. te yonent bi day toog ku ne mu jox la ci manaaxi bi. dëgg la téeméeri junni ak ñaar junni ñeent. ñam ko jox loolu bëriwul. allahu akbar ku ne mu ne la am lum la déy. képp. waaw képp. tey keroog ba mu soo xoolee euh, Salmaanul Farsi yi mm-hmm. ah. rëdd rëdd dem wa. wallaahi ni ko ñëwal dugg ndax ci ñun nga bokk. Mhm. kan moo ko ca añaane wala mu mu ko. kenn kenn ñëpp ñëpp a ko nangul. waaw ñëpp a ko nangul. Hm. jeex na wallaahi. Abdoulaye Moussa nekk fa mën a jàng ba bëgg de mhm. mu ne ko bëgg a jàngal xuraan ni ñu ko wàcce mhm. jàngale ko ni ko yi di jàngee. billaahi comme déranger. kenn déranger kenn ñu nangul ko jàmm. ñu ko ko est-ce noonu ngay def dégg ñu ne Serigne diw nangam. waaye nangul ko ko nangul ko rek te jàll amul problème bu ëllëgee ñu wax suñu diw nangam nga nangul ko ko waaye nag parce que loolu moo ko am dëgg la ci wax yooyu dégg naa ci ay nett li yu xajut ci bopp de yoo xam ne xëy na ñun euh, ni ñu bindoo ni jotaay bi bindoo yooyu moom dëgg la du ko jar waaye dégg nañ fa nett li yoo xam ne la xam nett na moom <laughs> waaw ma nett la ci benn waaw <laughs> waaw dinaa ñëw taxaw si tiim sëñ Cheikh Al Hadj Malick si ndeysaan radiyallahu ne ko hmm. si si saawaane li nga def génn góor yàlla mënu ko. billaahi billaahi. bàyyi bañ aj màkka ba nappi. Hmm. nga jóge Sénégal. Hmm. dox ñaari jéego dem màkka. Hmm. fekk ñu tëj Kaaba ga. nga dóor ko mu ubbeeku nga aj delsi te mu ne ko da nga ma doon xasam da ma doon tagg. <laughs> mu ne ko ah ne tekk mu ne ko waaw naka lay jëkkee ba aj weesu may dem. <laughs> yàlla xam nga ni bi tagg. te alxaju asurul maalumaat ma jàng ko. <laughs> xoolal sëñ Mbàkke. donc noonu ci penc bi. mooy yañ daan waxtaane ca néeg ya di ko waxtaane ca yëf ya mhm. jenn waay mu dem yóbbu ko ca télé ba dëgg la te du wax dëgg yàlla dëgg la de waaw mhm. dégg ko rek daal ko indi ca télé ba tey mhm. mu jax tag te waxtaanu biir pénc bokkut ak waxtaanu ëtt dëgg la bokkut waxtaanu biir néeg bokkut de déedéet bokkut de est-ce que bokkut de waxtaanu pénc mi daa am waxtaanu biir néeg daa am waxtaanu ëtt bi daa am. Mm. muy reerukaay bi. dëgg la wallaay xanaa looloo taxoon oustaz ñuy wax ne wàllu yi ndax bu defe naa bu dee mujiza moom nga waxoon ne yonente koy am. Mm-hmm. bu dee karaamaat nag mooy yi nga xam ne maanaam wàllu yi ñoo ko moom. Mm-hmm. moom karaama moom daa mel ni ñoom li ko sax da daan diis ci ñoom ba duñ bëgg ko koy nettali. ah maam sax xayma inal karamaati xayru. Mm-hmm. li rijaali li rijaali oh. mu ne karaama mbërëg la ci góor. <laughs> waaw góor gu gis baax moom du ci penc mi di ko nekk. mukk ba ngay jàng arkaanu bay ci jamil ak xawmi mhm. ñaata la arbaa arba mhm. wallaay <laughs> ba mu koy lim mu ne sumtun waaw moom la jiital de ah jeex na mhm. sumtun mooy mooy noppi mais oustaz wàllu du nettali karaama mukk est-ce que foo ko nettalee déranger nga ko wallaahi kon da nga cee war a noppi sumtun sumtun <laughs> noppi waaw cey borom da may ab sées bu rafet fauteuil bu set wecc tegal la ko yaa ko moom mooy mm-hmm. la nag bu ci toog wallaay suñu si yax lu la koy jàngalee oho yaa moom sées bi mm-hmm. bokkoo ko kenn waaye nag mm-hmm. bul ci toog dëgg la dëgg la sumtun sumtun waaw noppi léeg-léeg de oustaz loolu day am waaye aji toppe ji ndax yi ci ëpp na ci réew mi booy xool du suñ problème mu euh, kilifa yi ci waxin ndax ñoom wane nañ aw yoon daal ndax wane nañ àdduna yu bare bari yoo xam ne amuñ ci jot Mhm. ba ci liñ war a nekk rek lañ nekk ba seenub génn sax bareetut mhm. léeg sax fi ñu leen di xaar ci ñu wax ak nit ñi sax waxuñoo ak ñi ndax mel ne pénc mu naqari waxe mi ñu nekkee moo tax mhm. waaye léeg-léeg yëkkatante beeg ajante bi daa mel ne supporters yi itam daa am luñ ci def ndax léeg ñu ne nangami vie lañ diw la diw am bu muy waxtaanee eh, diw léegi ëppalante ay wii day am kon mhm. nangam lañ fa maye cib xaalis ba diw di waxtaane diw kon mhm. ëppalante mayante day daal di am mhm. yu bare bari daf cee feeñ yoo xamante ni usa dama bëgg ñu xool jeexital yi muy def ci ñun maanaam aji aji diglu yéeg réew mi loolu ban jeexital léegi su boobaa defatuñ ko ca kontu sëriñ boobee waaw defatuñ ko ci kontu diine defatuñ ko ci kontu alxuraan nii kontu yonent bi suñ konti bopp la dëgg la dëgg la te gis nga suñ mbàkk mm. bari na ko wax yëkkati. nu hmm. yëkkati jox la. dëgg la gis nga jox jox boobu. waaw mooy noppil. waaw. mooy xel leen ko ataay itam noppi. waaw. est que. parce que jox jox yooyu léeg-léeg. Hmm. jox jox yi. Hmm. kii jox nit bur bëgg mu góorgóorlu. wa in tuxfuuha wa tu'tal fuqara. wallaahi boobu lay jox. allahu akbar da koy nëbbu ba noppi jox ko ñu ko yittewoo. waaye woote ci rajo bi. waaw ah. kooku sëñ Mbàkke. may naa la ñaari kër. Oh. gaañ nga sëñ Mbàkke billaahi te kat léeg-léeg fukki nit juróom wax kenn kenn cay def lam wax te koo koy def lam wax dix lay wax wallaay kon jox jox yooyu lu ci sunu réew la la xew mm-hmm. wax ñaari baat am ko fàq fële mm-hmm. di waaxu ba ñëw xam nga lu ma la jox mm-hmm. juróomi dërëm lay boq waaw ñun yaakaar ne bokk na lu jeex na allahu akbar mbooloo ma tas ngis ku ne suñ mbàkke waaw man affaire yi fi mu ne looloo xew léegi di <laughs> eh, fi mu ne daanaka muy koor ak muy léegi dañ naan yéen oustaz seen affaire baax na ah. yéen moom gars yi duñ leen fàtte man ah. man de jaaxal naa ci loolu jeex na loolu de kiimaan dëgg la loolu kiimaan la tekat ki la koy wax du la jox dara déedéet <laughs> joxi lan waaw <laughs> te it ma waxate ko waaw oustaz eh, jigéen ak sëriñ ñooyam mhm. ku leen di ñee doo leen dimbali doo leen dimbali wallaay wax nga ku leen di ñee leen dimbali waaw fukki weer ak ñaar. wenn weer ñëw ci. te kat sëñ ustaas yi lañ jàpp rek waaye Ramadan. waaw ni mu nekkee traite ci ci ustaas yi. la nekkee traite ci rajo yi. wallaay ci télévision yi. Mm-hmm. am déet. Mm-hmm. ci oto yi ci marché yi. dëgg la ci jaaykatu lujum yi. Mm-hmm. ci ci ñoom euh, Mayoro Fall. ba ci tailleur yi xam nañ ci dara rek. waaw bari nañu bari nañu naan koor gi damaa laal bi daa ñëwee kaay ñun ñëpp la. wallaay wallaay yàlla na yàlla dimbali. amiin yaa rabbal aalamiin amiin. Mhm. ndax yàlla am na solo oustaz koor gi moom jeex na. xam naa yóbbaale aw yiw bare bari ni mu ko baaxoo defee. wallaay eh, maanaam yan jeexital la war a def ci société oustaz. xam naa lim naa ci ñett day. Mhm. ci ba muy na bi nu waree ba noppi sunu borom daal mhm. njëkk a ca diggante koor ak aj gi. wala taakulu amwaalakum baynakum bil baatil wallaay parce que loolu la ci njëkk a teg. <laughs> mooy woor ngeen ba noppi. waaw seexlu leen alali jàmbur yi. Hmm. soo wooree ba noppi seexlu alali jàmbur yi danga nga daan xiif ak mar waaye woor gi defulu dara ci yow. <laughs> wala taakulu. amwaalakum <laughs> baynakum bil baatil watul loo bee alal xukaam. Hmm. wut avocat. Hmm. lekk lu tuuti taxul muy ko ba noppi wut avocat. waaw. lekkul ju taxut waa ji ay milliards la bëgg tëdd wala ay million mm-hmm. wala ay terrain jàmbur mm-hmm. wala suufi jàmbur mm-hmm. wala hectares yi jàmbur léegi nag jël avocat avocat ba laya laya lay ba mu jàll wallaay nga ñëw toog daal di toog ah. loolu xew na oustaz waaye bés a ngi ñëw ci bés yi sëñ Mbàkke mm. gis nga àdduna mm. léeg-léeg nga xool ko mu yàgg doo xam lu muy niru wallaay waxoon naa bu ma lay firil Issa <laughs> wax na la may firil Issa Dia ku sa projet àgg. Mm-hmm. ku say projet àgg. Issa Dia nasrullahi wal fathu. Mm-hmm. wa ra'ayta naas yadxuluuna fii diinillaahi afwaaja mm-hmm. fasabbih waajal. gis ko ne ci dara ngaf ngaf ngaf ngaf ngaf ngaf ndekete. lu gaat lu tuute ko fi dese. nga jékki-jékki ceebu jën ba nga aayoon. buñ la ko joxee doo añ. bay mbay kaar kaar yàlla tere euh, ñu baal ma. Hmm. xam nga càlle càlle tay ba cekkeen nu ñu bëgg yàpp. waaw <laughs> mbaadu. waaw ah dañoo xaw a bëgg xeet yooyu. tabarakalla waaye bàyyi mbay mu toog ñu teg yàpp. billaay. ah. domp ci yàpp tegal ko ci gémmiñ gi. billaay ndeysaan. cay. waaw. Hmm. donc. lëwal noonu nga dem yàgg mënutul naanub lëwal. Hmm, naa nga damay xaar deuxième wala damay xaar troisième. jeex na. ndeysaan boo nelawee fàttali nga am lépp. lu ko fi jar. wallaay wala taakulu amwaalakum. baynakum baynakum bil baatili loolu la njëkke mm-hmm. la ca tege. Mm. yasalunaka anil ahilla. muy li ñu ubbee léegi. waaw waaw. na ko noonu. suñu borom nee na. Mm. bu ngeen wooree ba wori. Mm. te weer wi yitteelu leen ngeen réglé ko. da ngeen doon xiif ak mar dong. est-ce que est-ce que. yasalunaka anil ahilla. qul hiya mawaqitu linnaasi wal hajj. Mm-hmm. kon ndekete loolu. commission ba commission ba déedéet ñun ñëpp ci war a jóg. responsabilité ñëpp la partage. waaw waaw. ginnaaw nag def ne man raa minkum munkaran fal yuxayyir bi yadihi. état mën na bi yadihi. sëriñ si mën nañ bi yadihi. waaw fa ilm stati fa bi lisaani yi ustaas yi waaraate ci rajo yi. Mhm. fa ilm stati fa bi qalbihi ña bokkul ca ñooña. xanaa kon ñaar. bi ko ñetteel. Mhm. wala sal birr bi ant atul bu min zuhuriha. doo ndeysaan wallaay. bu leen defe ne ak mbaax mi ngi nga soxla Baye Umar Gueye. Mhm. fokk am ku la inter intermédiaire wala intervenir la. nga door a ñëw mën koo gis. mu ne bàyyi leen loolu. wallaay est-ce que. fonction lu fonction publique. Hmm. lu lu nu mu tudd Mbàkke fonction fonction publique. déggal waaw ñan ñuy publique bi. xanaa ñun. jeex na ñun ñi la defee yow tey fi ne boo demoon fonction publique. Hmm. bëgg fa fonction kenn wur laa laaj ban parti nga bokk. déedéet kenn wur a laaj ku la fi yebal. Hmm. kenn wur a laaj koo fi xam. Hmm. waroo joxe na as not. wallaay déedéet ko jëru ko mukk sa xibra ngay indi sa xam-xam ngay indi. wallaay ñu xam ni réew mi soxla na sa xam-xam bi. léegi nag bu fekkee dañ ne fonction publique ba noppi public publique bi moomuñu ko. Mhm. wala ab parti ko ci moom wala ab group wala ab nangam. Mhm. su boobaa am na fu war a mën a dox te du dox ndax kañ fa yóbbu du ko yeyoo. Mhm. cumulation de postes yi daal di commencé ñëw. ndeysaan ñett yi la suñu borom njëkk lim ci bu ñu dee koor. door a indi nag wax xaajuloo fi sabilillahi nangam nangam teg ci yem ci teg. ba ni àgg ci wa atimal xajj wal umrata lillahi. wallaay li ci diggante bi su mokkee. ku aji sax aj dana dana dana mat. allah jërëjëf ci laaj bu am solo macha allah am na solo oustaz eh, eh, ci koor ak jeexital yooyu nga xam ne moom lay def danañ ci ñëwaat waaye contexte bi mu dajeel fi mu ne mooy contexte wu corona mm-hmm. <laughs> ndeysaan moom de kiimaan la nga xamante ne eh, moom itam am na lu mu bindoo ak ay actualité mag ni nga xam ne noonu lañ koy toppee nooy jàngate corona bi ba fii mu toll nii oustaz waaw moom de boo yëree bitim réew yër réew mi waaw xam ne lakkal niñ wit mm-hmm. lakkal nañ wét bitim réew ngay rob mm-hmm. ña ngay ña ngay def leneen waaye nag ñu ngi koy ñeme si mm-hmm. waaw mm-hmm. wax ne dëkkandoo bu dul ñibbi daal feexe xam ne dëkkeek moom moo ci waaw nga cay nekk meneen réew nga noonu Amérique na nga ca ku ci nekk yaa ngi jéem bi waaye daf sono rakkal nañu witt de non seulement lakk nañu witt sax waaye fi nekk nii sol ab masque na suñu mbàkkee wallaay dafa métti dafa metti te man sama classe gi ñun jàpp nu waaw. boo yoroon nopp yu métti boo ci tege day takkee day métti. Mhm. waaye teewul jamono obligé na la. Mhm. corona bi obligé na la. Mhm. boo ñëwee suñu jàkka ji fi nekk nii. nun ngay def ñëpp ay ñëw ak masque. ndeysaan kii taxaw fii ki taxaw fële. kencil ma xam mbaakol kee tay ba ca kenn. Ah, bi ñëw ci korite gi nun la def. biir koor gi nun la def. bi ñuy jub koor gi yaa ngi dégg ñu naan corona koor gi. Mm-hmm. nu ñuy def. Mm-hmm. waaw lu ñu dugg ci. donc lakkal nañu huit. ndeysaan man nag su ma xëyee ba dix heures jot bu ñu nekk bu ñu bu ñu tuddee quatre vingt. Mm. daanaka du ma añ. nga tiit lool. waaw. te mënu ma ko ñàkk a déglu. <laughs> kii la de ah, loolu kii waat moom daal bu nekk quatre vingt. Mm. yëgal na sama sama naaw gi na nag. ndeysaan bu ñu nee kaayu critiques yi. waaw waaw. 19 ak ay 20 yooyu. nga gën a tiit. parce que foofa dégguma fa ko fa jóge déedéet neen ma baal nag. Mm-hmm. dem na ca kaayu critique ya. Mm-hmm. wér na ñibbi na. ah xam naa xëy na ministre bi dana ma ci dimbale. Ah, kii man la. waaw kii man la. noonu. Mm-hmm. Euh, lakkal adduna si huit. dëgg lim reyagum léegi tey mu jege million. ñim dal mat nañu ñeent wala ñetti million lu topp. waaw. ndeysaan léegi nag mi ngi jàpp mag ñi mi ngi rey ministres yi. Mhm. ma nga ca tabarkalla am na ponkal mu mag mag. bu mu rey Soudan. Mhm. am na benn docteur bu mag a mag bu mu rey fële ca Égypte et cetera. waaw waaw. donc euh, yàlla na ko fi yàlla jëlee. amiin yaa rabbal aalamiin. yàlla na ko fi yàlla jëlee. amiin yaa rabbal aalamiin. bu ñuy fe fegu. Mm. di fagaru. Mm. di faju. Mm. nañuy ñaan. incha allah incha allah. waaw nañuy ñaan ñaan. kon ñaan baax na ci loolu ñaan baax na ci lool est-ce que daa mel ni moom dal gan la goo xam ne oustaz nag ni ñu ko doon jàmmaarloog moom dañ cee tàmbalee teggi suñu loxo ci ci ay fan ndax bu ñu waxee ne nañu delluwaat ci école yi xale yi war a jàngiwaat ñaareelu fan ci weer bii di ñëw euh, loolu loo ciy déggee yow. Euh, xaw naa ci tiit d'une part. Mm-hmm. tiitaange léeg-léeg dañ koy jël. Mm. te am ñu des ca jël ga. waaw man loolu laa ciy tiit. Mm-hmm. barki dem bi ñu ne jàngalekat dinañ dellu fañ doon jàngalee. Mm. am na nu ñu ko mënoon a def noo xam ne kenn leen wax dem leen barab sàngam dëgg la ak nu mën a mel rek lu am. kaar bi mën na fa jógee. Mm-hmm. jaar ko la baan jaar barab sàngam jaar barab nit ñi dem. Mm-hmm. te duñ ñëw dajaloo ñëpp fii ci terminus bi. waaw ak ni mbir ñu wooxee ñëpp ñu daje mm-hmm. ce que man dañu woo juróomi téeméeri nit. ñoo xam ne kenn amu ca kaa. ay risques ngi ci de. waaw ay risques ngi ci de. looloo yëf yi waaw ñu dajaleel fa daanaka ñu xaw faa yendu ñool ñool jeeg ba ba jàppal bàyyil hmm. te teewul yóbbu ñu ñëpp hmm. loolu moo xaw na ma cee tiital ndeysaan la ci tege mooy est-ce que noonu lañ ko bëgg def kon def ko ca ca ca biir ecole ba hmm. gone yuy jàng si billaay est-ce que loolu day doy benn beneen cas la la ci tege mooy personnel bi nga xam ne ñoo yor jàngale mu xam ne ñoom mën nañoo woon waaye gone yi moom lay la xam doy na wallaay donc loolu xaw na ma ciy tiital lool. Mhm. bu dee adulte yi wala mag ñi nga xam ne ñoo nekk ci yeneen classe yi ñoom tam noonu lay mel. Mhm. donc daa dafa war a am taxawaay bu mat sëkk. boo xam ne duñ ci am lu ñu contestee ak li waru ko doon. Mhm. bu dee raxasu nañ ko wut ca buntu école ya. wutal leen ay masque te bañ a def ci classe soixante personne soixante quatre. bari na ci waaw. waaw ku nekk sa table banc. te war nañoo mën a dugg ca table ya defar ko ba nga xam ne école bi yëpp bu baree ba bari vingt personnes la ñu doon. te mhm. classe bi bokk. Mhm. classe bi bokk. waaw vingt waaw. su mhm. ko defee gone gi buy jàngee ñu xam nan lay demee lu koy yóbbu. bu dëppee lu koy jël seeg lu koy yóbbu. bu demee ci buntu école ba nan lay duggee ci biir. bu demee nan la fay nekkee. wàcc jotee nu muy wàcce bu ñibbi nu muy ñibbee ba àggee kër ga nu muy def. loolu ci cours yi ñu war njëkk a jàngale ci la war a bokk ci cours yi war a njëkk a jàngale loolu ci la war a bokk mu mokk rumbax xale door ñoo commencé jël bind moo tax su suñ ko suñ ko suñ suñ ko jëlawul oo sérieux foofu war na nar naa métti mm-hmm. région boo dem fi nekk na ñoo la ñu jàng fag jàppal bàyyil mm-hmm. waaw mm-hmm. ah doy na waar oustaz mhm. euh, ndax ndax ndax li jàngoro ji mel ne loo xam ne dafay nar a yàgg lool moo tax ñu fas yéenee jànkonteeg moom xool nan la ñuy dëkkeek moom nan la ñuy dundeek moom waaw wala wala comme léegi dafay ñëw de dafay ñëw décembre la ñu fi ñu defe naa mars la ñëw fii waaw mars la ñëwoon fii waaw bi bi président njëkk di wax def nañ ñu tëj école yi trois semaines mhm. si déggoo ko de waaw loolu lañu ñu waxoon waaw ñu tëj école yi trois semaines waaye bu ñu la ñu tóor jàngoro ji nee man mhm. déw ma léegi de maa bañ. septembre lay ñibbi. laa ilaaha illallaah. tey. léegi nag ginnaaw dañoo dañoo taxawal transport bi économie bi njënd meeg njaay mi njàng mi lépp ñu taxawal ko mu saf sàpp ñu am ci ñaari weer yoo xam ne daanaka la yàlla xam ne adduna ngi bëgg a tukki. Mm-hmm. buñ ci bëggee dolli. juin juillet août. septembre mu yeneen quatre mois. Mm-hmm. fekk si deux yi muy six. Mm-hmm. loolu at mi tukki lay doon. dëgg la dëgg boo na yël ban ni ne dem leen mu gën faa tukki. Mm-hmm. waaw moo tax xam naa laaje woon a toog jataay waxtaan. ba ku nekk gindiku ci sa morom. ñu door ko ñu door ñu door ko mën a doxal. dëgg la lu ko may rek yëf yi mën naa juraat leneen. te dem ba mu yàgg ñu ne ah nañ nañ toogaat. loolu ji tukki la. wallaay kon foog ñu jéem a négocier seet ba xam nu ñu def ak moom. mu laaj ñu jéem ko ko jox rek. jàmm na ñooy. macha allah jërëjëf ci laaj bi am solo bi. macha allah am na solo oustaz jërëjëf jërëjëf ci tontu lu am solo loolu nga xamante ne ñi ngi ànd ak moom ni nga ko waxee doon loo xamante ne yéeme na waaye jamono ji ñaan nañ dellu ci école yi jamono jooju la waa daara ji ñu baree bari di wax ne dañuy xeex daara yi da da nga koy dégg ñaare xale yi nga xam ne ñoo yelwaan te ñu dañuy ramas yaa ngi dégg coow yi am ci diggante daara yi ak euh, wala jàngalekat yenn yi ak décision yi nga xam ne léeg-léeg ñu ngi ko ci jël nooy jàngate ñaar yooyu. Euh, xam nga suñu Mbàkke. Mhm. sunu penc ñi fi jàng tubaab. waaw njàngum tubaab lañ xam. Mhm. jàng njàngum daara. lu mhm. dëgg. te njàng daara na ko na ko ñoom yoo doon songe. daanaka ku jàng ca côté bee rek mun nga ko songe. dëgg la. seexlu daara. seexlu ñooñ daara hmm. xeeb daara xeeb ñooñ daara hmm. daanaka position benn lay doon hmm. loolu moo jur lii bi ñu ne nañu dellu ji élèves yi déggu ci ñu wax ci daara dara xanaa gàddu leen seen daara yóbbu leen ci ay centre jox leen mayor Ronaldo ne la aju fubal leen gis naa xale bu bu añ ba noppi naan ah, lii de moom war naa yàgg waaw couvre-feu bi dana yàgg <laughs> donc kooku liñ liñ liñ ko defal bukkut ak loolu bi bi ñuy seet ay solution dañoo waroon bu ñu jëlee xale ci daara ji daf daf ne dafa taq hmm. wala dafa xat wala dafa nàngam hmm. yóbbu leen ci centre hmm. nañ jël suñu daara ba indi ko fa mu nekk fa ak ñoom waaw bu dee jàngal leen lañ bëgg ak ñu num tuddati waaw waaye ni leen nañ leen delloo seen seen mbokk lu ci indi baat boobu <laughs> loolu daal moo ci doy waar moom feebar bu ñu jot ak ñu delloo daal xale bi ay bokkam te Mbacke. Hmm. pay mbedd maa ngi fee dellek gone yoo xam ne jóguñ jógewuñ ci daara. effectivement est-ce que sax ñëpp ci gone yi sax ci daara ji lañ. gis naa ci mbedd mi ay jeeg yoo xam ne. Hmm. jógewuñ ci sëy hmm. gis naa ci waxambaane lu ne gis naa ko ci mbedd mi. dëgg la léegi nag ñu ñu ne daara daara daara daara rek daara defut loolu. déedéet déedéet. sëñ Mbacke. daara ko bokk ak école. ndax national lañ wax. wallaay indépendance ba léegi. nii lay doxee. borom daara mooy kopp koppal. fexe ba am lum lu mu taxawal. nekk ca di jaamu yàlla jàppe ko jaamu yàlla. dégg nga. bu bu bu lottee ci lu mu dundale gone yi. ne leen dem leen ca kër diw mu sarax leen lu ngeen añete ngeen ñëw jàng. wallaay loolu moo fi indi mu yalwaan. mais bu état bëggoon jóg tey tey bu subaa subaa yàlla mu jóg ci yàlla yalwaan mu jóg fi. wallaay bu ci xëy rek mu fi jóg. léegi nag suñu budget bi 60 pour quarante pour cent yi. Mm. lu ci daara am. <laughs> Ah, man de xaw ko. xanaa ab sarax léeg la rek yi ñu koy mosal ak yooyu. waaw ndeysaan. te buñ la saraxee yuuxu la ba nga sonn. <laughs> dimbali daara ji di moo fi indi lii la xar jaar. dëgg la de yal yàlla yërëm. amiin yaa rabbal aalamiin macha allah oustaz. Euh, corona métti na lool. waaye ci daara la gën a méttee sëriñu daara. Mm-hmm. Mm-hmm. c'est très dur. Mm-hmm. waaw wallaay. est-ce que métti waaw am na solo lool metti na lool comme ni nga ko waxee moom day. Eh, <laughs> kiimaan la. kiimaan la la ci fànn yëpp oustaz. waaw kiimaan la lool ndax itam jamono jii ñu baree bari ñu ngi jooytu léeg na li leen di jaaxal di ma jaaxal mooy eh, dogal yi ñu jël ak ni ñu koy tegee day mel ne da lay gën a yéem. Hmm. fi mu ne transport bi de oustaz rawatina transporteurs yi. Hmm. safoor yi yeeg yi nga xam ne moo ci aju ku xam li ne ci ginnaaw safoor ni mu yaatoo. Hmm. di leen yërëm lool. léegi nag gannaaw ñu ngi wax ne dañuy jéem a dund ak tawat ji ndax niñ ko gisee demagut. ba tax ñu ne dañuy waat xale yi ci école yi barab liggéeyukaay heure doon wàcc ñu yokk ko heure couvre-feu bi ñu yéegal ko wàllu dem beeg dikk bi moom oustaz ban xalaat nga ci am xalaat bi ma ci am ne mooy woo ñu yor dem beeg dikk bi ñoom góoru xuma ñoom Modou Mboub ñu woole ne lu ngeen ci xalaat gis nga bi ñuy bi ñuy yóbbu jàng ak jàngkat yi xam nga dañu jël benn benn société rek ne na yóbbu leen leen nit ñi dema ñëpp demaguñu waaw bu fekkee oto rek la. Hmm. mënoon nañu oto yee bu ñu ko jëlee ba mu jeex ñu jël yi. dëgg la jàngalekat yi ñëpp demaguñ ba léegi. Hmm. ñëpp demaguñ ba léegi de. waaw te dégg naa li ñu dajaloo ni mbooloo moom mu bare daanaka lu toll noonu sax daanu daje ci garage ak hôtel yi. jeex na waaw ah léegi kon nañ woo ñu yor loolu loolu ñu waxtaan. Hmm. waxtaan boo xam ne dañ koy teg ci taabal ji te te te jëfee ko. doxal ci démocratie. dëgg mooy góoraxuma lan nga xalaat ci transporteur bi. transport bi waaw sëñ Modou Mboob loo xalaat. mu ne lii laa xalaat ak léeg lii ñu ne ko kon nañ def léeg li mhm. lii mënuñu ko wala lii lii lañ ci man dëgg la jàmm na ñooy waaye koo xam ne kii otom bii hmm. ci ci la daan dox ba dem voyage delsi hmm. desal trente cinq mille hmm. yónnee këram cey desal trente cinq mille yónnee këram waaw mu toog lu man ñetti weer yoo xam ne mu toog lu ñetti weer yoo xam ne trente cinq mille yooyu dugg wallaay léegi kooka waa kër gi du ñu def. dëgg la mu tumu xanaa tumuranke lool jeex na maa ngi ciy gis ay buntu kër njaareem yoo xamante ne ndeysaan ñi nga gaari seeni i oto baase boobaak léegi léegi mu mat tax daanaka pneu yaa ngay perte waaw ñu toog nga xamante ne daanaka ay ndimbal la ñuy xaar lu leen mën a jox ci ñoo xam ne ay góor yu daan liggéey lañu affaire bi métti na de te bi ñuy jox ndimbal yi déggoon naa lu ñu jox transporteur yi mm-hmm. bu fekkee àggut nañ ko àggale bu fekkee daa doyul ñu dolli ko wallaay waaw loolu rek naa ndimbal yi de oustaz bari na ay coow moom Euh, damaa xamul ba xam euh, kii bi ñu jël maanaam option bi ñu jël jënde ko ceeb ak diwa gi ci aju moo baaxut wala loolu bu baaxee itam daa àggut ni mu war a àggi waaye ndimbali de dese naa def effet moom man de ca tàmbali ga waxoon lool hmm. position boobu mooy mooy ma ci taxaw ba léegi hmm. jënd ceeb ak diwlin ak saabu ak ñoom si ñooy yóbbu hmm. ci quinze millions personnes la kenn mënut fokk mu am ñool-ñool ak jàppal bàyyi rek diw amul. wallaay. Hmm? waaye ba ñu ba ba ñu amee suñu suñu junni milliards. Hmm. mbàkke. <laughs> junni milliards. waaw jaaykati ceeb yi. Hmm. ñoom bokkar Samba Dieng ñi mel ni ñoom. Ah? bàyyi bokkar waaw bu ñu demee ne ko looy jaayee kilo ceeb mu ne trois cent cinquante. ñu ne ko léegi cinquante lañ bëgg di ko jaayee. loo yor ci ceeb ñu ne nangam ñu ñu subventionné ko. foofa mboolem koy jënd ceeb léegi ba demee fukk dërëm ak juróom lañ la koy jaay dëgg la jox nañ la ceeb mm-hmm. am déet mm-hmm. Sénégal yëpp bu fi ceeb doon jar loolu fi ne wallaay jox nañ jox nañ ñu ceeb dëgg la dëgg la Côte bi ñu koy def Côte d'Ivoire fi ne déggoo ñool ñool ja mm-hmm. parce que da ngay toog rek gis ci sa téléphone euh, sa sa soixante dix mille soixante quinze mille sa quatre vingt mille amul ñool ñool dëgg la waaye jëndi ko ceeb gàddu ko ci oto yi. Mm-hmm. léeg-léeg nga romb fenn oto yi rang fii ba ci la ma xam mbaakool oto yaa ngi taxaw. Mm-hmm. waaw muur ko ja amagut paate am na nangam ki nangam coow leen kur léegi mën nañ cee dugg di joxlante ba far yëfi corona bi far tasaaroo foofa billaahi euh, cas communautaire yi yàlla nu yàlla dimbali amiin yaa rabbal alamin donc man loolu mooy la ma ci doon xalaat mm-hmm. mooy daal loolu mën nañ ci mënoon nañ cee wàññi ceeb bi wàññi ci dëwlin ji wàññi ci saabu. Mm-hmm. wàññi ci gaz. Mm-hmm. ah wàññi ci essence. Mm-hmm. wàññi ci gasoil. wàññi ci yëpp su ko defee su boobaa jàmm nañ ñooy boo muy lu baree bari daal di wàññeeku. dañ koy fàttaliku atam atam wàññi ba. <laughs> waaye ni ñu ko defee ni de néew mu baaxut de. Mm. waaye ne de moom ma gën loon man. dëgg la macha allah. muy lu am solo de loo xamante ne doy na waar ndax fi mu ne oustaz am na ci ñoo xamante ne ñu ngi ci seen i dëkk. bi tawat ji amee léegi ci misaal tey ku dëkkoon Thiès wala mu dëkk Ndar doon liggéeyee Dakar dem fa far ñu tëj bunt yi amul oto yu ko indi wala lim daan liggéeyee loolu taxaw na léeg mu toog di xaar ndimbal yi man sax maa ngi romb ay camion ceeb yu bare bare ci buntu ci buntu gendarmerie bu Bambey ñu baase ko foofu mu taxaw léeg-léeg itam ñu romb la ci télé bi wax dëgg yàlla likkaloo ñoom camion yi jiit la di dem waaye da nga dul xam fu ñu jëm ndax da nga dul gis li mu def ci société bi moo lay won loolu problème jeex na mm-hmm. kenn woogu ma càlle ne ma am nañ <laughs> ah doy kenn wooguma challenge na am nañ beneen bi ci waa bitim réew itam coow yu mel noonu la ñuy jànkoonteel mhm. ñi ngi may woon ab image boo xam ne ñi ngi wax ne France la ñuy séddoo ji lañ leen jox seen wàll ci xaalis bi waaye day mel ne du du mat dara ndax euh, du ëpp 300 euro boo moytuwut te xamuñu kan moo ko yelloo ku ko yelloowut loolu itam day indiwaat beneen bu xanteeg beneen raj raj loo de waaw waaw sa <laughs> bi yombu naa boo fekkee mbooloo boole leen lu bari. <laughs> bu séddoo ko nu tuut ah bi yombut yombut dara mi ngi mel ni nga ñëw ci aj makk nga fekk nit ñi ca Muna. Mhm. nga jox leen 4 millions. waaw ne leen añu Muna. bu buñ ko seddoo ku ci nekk ay 3 rial am ak 5 rial. waaye ba nga diggee 4 millions. bëri na ci yow. Mhm. Mhm. waaw. loolu tax suñu borom di wax ne bu ngeen fa dematee. bu leen fu tudd kenn ku dul man. waaw donc loolu tam noonu rek lay demee booy demee bitim réew jox leen xaalis. bu nu ko séddoo ku nekk xam nga trois cent trois cent euros boo toogee ñaari weer jàpp ñett ñu dox la trois cent euros ah. waxuma ne baaxut de dëgg la waaye day lam lay fajal du bari wallaay te foofa ci réew ya kat ñu waa réew ya yor yi ñoom ñu ngay dimbali seen doomi réew ah. waaye gannaaw xamante nañ wala boog da nga remplir ay yëf da ngay toog fa nga toog bu semaine bi matee wala weer yu mat ñu ne la ko curul rek nga daal di jot sa wàll jàmm na ñooy jàmm na ñooy waaye ñu de doy waar daal nag da dem boo xante ji nangam nangam eh, toog leen ana diw mm-hmm. jotuma ci fii laa ciy jot mm-hmm. waaw rek est-ce que xam naa li nga waxoon bi ngay tàmbali ñun daal dañoo spécial <laughs> waaw suñu spécial gi moom day feeñ ci lu bare bare bare bare masha allah fu ne lay feeñ billaay corona bi de oustaz bàyyeegul ndax fi may waxee yow ñeent fukki nit ak benn faatoogun nañ ci mm-hmm. tey rek ci ngoon soxna Ndeye Xadi may wax ne ma ñaar génn nañ ci àdduna ñoo xamante ne xëy naa nekkoon nañu ay mag lool looloon noo koy jàngate waaw moom de moom ngi jël ay mag de mi ngi yokki nag bët bu seddal ñaare ba mu tàmbalee léegi ca ca ca kenn ka ca mm. juróom mm-hmm. daanaka léegi par deux la ñuy wax par deux par trois mm-hmm. métti na de wallaay waaw métti na lool mm-hmm. ñu ngi masawu ñëm dal di ñaanal ñëm jël waaw di ñaan mu jóge fi dëgg di ñaan mu jóge fi waaye bët bu seddal nga taxaw ne mu faatu na ah mu ngi bëgg a métti te nun suñu bu dee dañoo bëriwut mbàkke réew yële. Hmm. da ngay dégg ñu ne junni dee na waaye duñ ko yëg. ndax ay million lañ. Hmm. ñun nag mataguñ ñaar fukki millions. Hmm. wallaay bëreeguñ de ñun moo déedéet tax boo jëlee juróomi nit rek ñu daal di wàññeeku. moo tax ñun arrangé wuñu dara. waaw ñun daal fi ne. lu <laughs> nu sakkanaay li ñu yor moo gën. waaw bu ñu amoon fi ne 40 millions lañ nekkoon wala 70 millions wala 80 millions nag. waaw naa am yàlla tere kenn bëggul ko faatu sax. dëgg la waaye ci la doon gën a nopp la mu tane tuuti <laughs> mu tane tuuti. <laughs> macha allah am na solo lool xam naa euh, li may tëjee sax xibaaru daara ji yooyu mooy rek euh, euh, ndeysaan ma waxtaan wi nga xam ne moom la suñ muntaxaa defoon. Mhm. ginnaaw bi ñu jullee it ba noppi. Mhm. tam xawalaal feebar bi waaye mu dellu siwaat ci ñun. daa mhm. mel ne oustaz mbir mi bu ñu seetloo lépp lépp lépp rek. daa mel ne ci ñun la bàyyi ko rek ndax suñ comportement yeeg suñ taxawaay ak yooyu nooy jàngatee eh, maanaam kàddoom yu am solo yooyu. waaw xam nga suñu penc moom. yàlla na ko yàlla yokk weer Cheikh Modou Mountakha. amiin euh, tabaarkàlla suñu wëllëre la suñu sëriñ la. Mm-hmm. Euh, ñun suñu mbir. Mm-hmm. Mbàkke waaw. lépp luñ dugg. Mm. benn ñu caf ko ba ñëpp ñu euh, xeeb nu. Mm-hmm. wala ñu gàddu ko ba ñëpp yërëm nu. dëgg la cay ñun. waaw fi ne. danga gis koo xam ne kii de ñu mën a dox fii ba cël ma xam baa ko te du def masque dëgg la loolu kay du problème fi ne waaw gars yi di alamaan nit ndax takkoo masque waaw fi ne léeg-léeg nit day ñëw sama kër ne yow laa soxla waaw ma taxaw nale sol sama masque ne ko dama wuti masque mm-hmm. ku dem sax naa bu ñibbi day mer mm-hmm. waaye comme dañu toog leen seen kër yi <laughs> toog leen seen kër yi mm-hmm. ku taxaw ne la ma demal wuti masque bu fekkee fa nga jóge daa sori mu dugg ci kër gi maa ngi faag paquet wala ñaari paquet masque. nga dugg may ko ma gàddu ci benn jox la. bu dee ko mel ni alaaj sàll ma ne ko dama raxasu fee <laughs> bu raxasoo ba ne ma defal ko sel jox ko masque na ko lu loon lu doon say tànk. donc ñun nun lañu mel ci mpénc mm-hmm. donc kàddu yu mel noonu waroon naa def ay jeexantal ci noonu. Mm-hmm. ñu bàyyi xel defarwaat jekk-jekkalaat. Mm-hmm. yëg ni kilaan la sa sangul sa taar la bëgg. du dëgg waaye fi ne ñun euh, yàlla nu waaye. man na fi métti de. Mhm. ndax feebar dëppagul. delloogul ginnaaw. Mhm. bañ ko déggee léegi amul bés buñ ne wàññiku na. Mhm. damaa xamul nag li ñuy woo ci ay cas di leen seet. mooy yokk moo tax li am positif yokk. wala lim bi mooy yokkoo ci wàllu googu. yàlla nu yàlla dimbale. amiin yaa rabbal aalamiin ñoo ngi ziar alxalifa di ziar xulafa yëpp. di leen jaajëfal ci. korite gi dëgg la di ñaan buy del siwaat yàlla nañu fekk amiin yaa dem na bàyyi nu fi amiin amiin jërëjëf sëñ Mbàkke muy lu am solo oustaz ndax taxawaay yooyu li dellu si ñun léeg-léeg ñun bu ñu xoolee pénc mi ni ñu ko nosee ak ni ñu néewalantee doole ci suñu biir ak léeg-léeg yi nga xamante ne moom lañ gën di yëkkati te loo ci laal rek boo développé rek la ngay mujje mooy ñun daal ñooy waa Sénégal rek day mel ne eh, mbir yi moom xaw naa dooy waar lool ñun daal ñooy waa Sénégal masha Allah <laughs> am na solo oustaz jërëjëf xam naa nes tuuti rek di daal di jubbantiku ma ñëw na ci laaj yi nga xam ne moo jotoon a des ci laaj yi nga xam ne moom la mbokk yi bindoon ci email bi di albidaaya arobas yahoo point fr jërëjëf euh, Hadj Mbacke kon euh, jërëjëf mbokk ñu déglu bisimilah kaddu gaangoog tafaddal mashkura jërëjëf oustaz jazakallahu xayran ñu ñëw ci mbokk yi nga xam ne ñoo bind seeni laaj jaarale ko ci email bi di albidayatu arobas yahoo point fr ñu ngi leen di ñoom ñëpp tabarakallahu macha allah ki njëkk a bind euh, leetaram bi xaw naa gudd tuuti hmm. waaye liñ ci mën a tënkee tam koy laaj nee na rakkam ju jigéen a ngi nii dafa am ku muy bëgganteel hmm. waaye daal moom ci boppam ay way juróom dañoo bañ ci sëy boobu ba lànk nee moom ko jigéen ki la ay waajuram bañ. waaw waaw nee na bañ gi nag dañ koo layale ay yëf. Mhm. la ca jiitu mooy eh, nee nañ daal ku góor ki ay waajuram dañoo amut woy wu rafet ci quartier bi. Mhm. beneen bi ci des itam liggéey bi muy liggéey daa xaw a xeebu lool ñu jàpp ne loolu daa amul sécurité ci may ko seen doom. Mhm. nooy jàngate loolu. bismillahi rahmaani rahim subhaanaka laa ilma lanaa illaa maa allamtanaa. innaka antal alimul hakim. Eh, sëñ Mbàkke loolu kum dal. da wax ku jigéen ki wax ju leer. li tax bëggoo. bu leeree. Hmm. te moomu ne bëgg na nga may ko. Hmm. maanaam paanaay ku jigéen ki ñooy wax loolu seen doom. waaw hmm. ginnaaw moom Mor Khoudia mi la bëgg. nga gis Mor Khoudia ay loo jàpp nii sikk la. moom ku jigéen ki gisul sikk yooyu. wan ko sikk yi. boo ci noppee nag maye ko. li ci problème kay duma la ko may tey du ma la ko may ëllëg soo ci duggee bàyyi na la adduna bàyyi na la alaxira loolu nag lañu ñu war bis bu demee ba gis li nga ko doon wax nag bu ñëwee nga yedd ko. Mhm. moo gën bañ gee maye. Mhm. bañ gee maye moom warul. doo looy opposé déedéet. mais sax tam est-ce que waa itam ni mu doon dundee ci quartier bi dafa dafa nu mu tuddati wala ay juróom ñoo fi defoon nangam daa war a tax loolu topp ko moom. déedéet moom deful dara. Mhm. wala tasiru. wala si ruutu seen uxra. deful dara. léegi sikk yu mën a sikki nag suñu mbàkke comme ku jigéen moom moom la bëgg te la. nañ ko ko may. dëgg la <laughs> xam ne lu laa ci xam ne man de penc ma mu xewoon bañ ma laaj sama xalaat loolu laa ci waxoon. Mhm. ñu may gone ko jigéen nga mu dem amu fa am at ñibbisiwaat. tey waaw boobu ñibbisi kër la jaar maa ko yóbbu. tëgg la <laughs> allahu akbar muy lu am solo. waaw est-ce que est-ce waajur itam sañ naa sañ naa opposé noonu. wala boog mu muy wax doomam loolu wala daa war a xoolal doomam ki muy dugg. ndax ku am liggéey bu baax la wala ndax ku bokk fu baax la loolu fan la ci limiti waajur nekk dañuy yéex a maye gonu jigéen yi waaw yéex gee maye da ci am wàccuwaay waaw hmm. bu fekkoon ne hmm. xale bi dafa ferum soow hmm. mbaa mu teg ci juróomi at ñu maye ko du am problème boobu wallaay waaye bàyyi ko am toll ni nogay am vingt quatre ans vingt cinq ans nga bëgg koo may am na koo xam ne kii moom la joxalam bi moom la bëgg moom la nopp. billaay nga am problème bu tal <laughs> ndax daa fekk mu nopp ba noppi. daa ah, jeex na. Hmm. te ba muy nopp du yaayam duggee papaam. waaw nobante rek boo demee génn lu yàgg. loolu ñëw ci kër gi jëlee engagement miinante. jeex na tàkk waaw loolu de boo naan ay kii yaayam daa baaxut ak liggéeyam bi daa suufee yëpp. yaa ko du dégg jeex na yaa ko gis waaye ci moom dégg de. moom li mu gis mooy nañ ko ko may rek. est que léegi bu ñu ko mayut ñoom ñaar est man que mën nañoo ànd. wala faw ñu may ko ko wala sañ naa dem ci keneen mu mayee ko. wala lu ciy pexeem ko góor. bu fekkee musta sëy. Hmm. bàyyi rek ay maye. Hmm. bu fekkee mas naa sëy nag. yontu bi nee na moom moom cëggul ñaayam. dëgg la na bàyyi yëg rek. macha allah waaw wa jërëjëf oustaz jërëjëf mbokk mi ñu ngi koy nuyu bu baax a baax euh, tey rafetlu euh, laajam boobu meneen mbokk mi ci topp di Birane Diaw mhm. moom aayab alquran lay laaj fële ca sóoratu tawba su ma juumut fala aaya ja nekk di wa ala salaasati alladina xuliqu euh, xulifu mhm. naam xata ida daaxat alayhim ardu bi ma raxubat wa daaxat mhm. alayhim anfusuhum wa dannu an la malja min allahi illa ilayhi ba aaya ji jeex. suñ ko bëggoon a tekkil daal suñu bàkke waaw. mooy dafa am xare bu amoon fa xare ba amee sori. Mm-hmm. am ñett ñoo xam ni dañoo jox woon ngànt te amuñu ngànt. wallaay. yonent bi asalaatu yëg ko. Mm-hmm. daal leen di mere. ñoom ñett ñëpp. mere leen ba ku ñuy doo leen fay. mer leen ba ne ne ba sant seen jabar yi dem leen ñibbi seen kër yi yaay léegi nag mer ma mer ma mer ma mer ma ba am na ci koo xam ne kii ku bokkul ci diine ji def ko bind lettre. Mm-hmm. doon ak kilifa nag. ne ko ñëwal ma fat la. Mm-hmm. mu ne ko da xamul ki ñu ko séqal moo tax. Mm-hmm. sa juróomi moroom buñ bokkoon ngeen neexal ma ma jubóog moom moom moo ko gënal. sunu borom na jiblu kaay nga kaay nga dem. wa ala salaasati lazina sa xataa bi daqat mu alayhimul ardu bimaa raxubat wallaay ba demee nga ne hmm. baal naa yonent bi ci boppam baal naa ñett ñii allahu akbar yonent bi ba ñëw mu jàng laay ji hmm. ñu jooyandoo hmm. loolu rek lay tekki maanaam yonent bi woote na ñu joxe ñu joxe ngant te am ñu ngant mu mere leen masha loolu tam dañ ci jàng ne kilifa sëñ Bàkke war naa doon ko xam ne kii bu ne këj rek njabootam xam ne kii dëgg la waaw di merantu ay merantu yooyu. très bien day mer ci lu ko jar. day mer ci lu ko jar. wax nga dëgg oustaz. wa shukran est-ce que maanaam daal warut doon koo xam ne bu meree du njëg ne mer na wala mu mer ñëpp ne ndokk. waaw am na koo xam ne su meree. Hmm. xat gi leen nga mer. waaw bu set daanaka nga mer. waaw di claquer porte yeeka di ngadd muus yeeka di faytale yeeka. wallaay boo xëyee jox euh, dépense bi mu meeka. Hmm. yooyu euh, hmm. kilifa du mere noonu. <laughs> dëgg la de. da ngay mer ci lu ko jar. régler dara mer ma jeex mel ni du woon yow. wallaay wallaay. waaw jàmm na ñooy. wallaay ndeysaan. shukran macha allah am na solo oustaz jërëjëf bala maa ñëw ci laaj bi ci topp sax bii dama ko waroon boole ci actualité bi muy mhm. problème mu euh, denc yi maanaam euh, tam benn ngi amoon fële ci Sicap Mbao wala ci armée lu mel noonu mhm. maanaam daal danañ ko fi suul ak duñ ko fi suul daa mel ne loolu léeg mu bari lum ñuy dal lool njuumte la de mhm. bii de njuumte la moom wallaay bi moom njuumte la xëy na ñu ne kii góor jigéen la. Hmm. duñ ko fi rob. am na ci sañ-sañ de. Hmm. wala agresseur la bu te mbokk mi yëpp. Hmm. xëy na. waaye bi moom jëmte la. daa faatu ci corona. kenn du ko fi suul. ah, ah loolu jaaxal na loolu jëmte la de. cey te moo ne nag boo euh, man gis naa ci benn rob fële ca ci Cambérène bu mel noonu. Mhm. waaye boo xoolee nañ koy kiiyee waa service d'hygiène ñoo ñëw ay sécurité ñoo ñëw li war a aju ci waajtaay yu yëpp ñu def ko denc ko loolu. wut am problème ñoom ñoo koy defal seen bopp. voilà ñoom ñoo bàyyeewuñ ko nit ñi. waaye ñoo koy defal seen bopp nit du nit du ko laal. waaw nit du ko laal. vraiment da nga a gis ko laal tàggoo damay seeti sama mbokk mi fi corona. déedéet kenn seetiwut kenn. <laughs> jeex déedéet kenn seetiwut kenn. donc njuumte la xam naa ne waaw. Euh, nañ ci dellu ginnaaw. Mhm. te bàyyi xel yooyu. dëgg la euh, barab it sëñ Mbàkke. Mm. barab bu ci mm. nekk dafa am ab kilifa diine gu fa nekk. dëgg ilimaan ba ustaas baab sëriñ. Mm-hmm. yu mel nii bu xewee. nañ dem ca masalama. dëgg la moo tax a dooleel lu mu ca tëral. Mm-hmm. ñu doxale ko noonu. nit day am kilifa nag wallaay. wallaay waaw. wallaay oustaz ñun problème boobu bi dañ koy xeeb waaye ñàkk gi ñàkk doyloo kilifa ak dooleel ko. waaw biit bu set rek buñ jéemalee suñ bopp mu indi lëj boo demoon ci koñ ba fi ne ilimaan ya fa nekk ak oustaz ko dem yëguñ ci dara dara. Mm-hmm. jékki-jékki rek ñu ne xale ya nangam. wallaay loolu baaxul. Mm-hmm. wa shukran ci laaj bi macha allah wallaay daw na yaram lool te daw na yaram kay daw na yaram te lool <laughs> jërëjëf ñu ngi koy jaajëfal bu baax mbokk mi ci topp mooy saaliwu mbay saaliwu nee na ñaan gi nga xam ne moom ngay ñaan ci tafsiru quranul karim bi boo jàngee aayaat yi ba noppi mhm. moom la bëggoon nga tekkil ko ko waaw jërëjëf ñaan gi damay wax sadaqallahul azim wa balaxa rasulul karim mhm. wa nahnu ala ma qad rabbuna wa la min ashahidin daani allahuma allahuma mooy damay wax ne yow yàlla mhm. yàlla na nga def alquran fii ci àdduna mu nekk suñu xarit allahu akbar bu ñu nekkee ci xabru mu nekk suñu wéttal bu ñu dekkee mu nekk suñu avocat bu ñuy jéggi siraat mu nekk suñu leer bu ñu jëmee aljanna mu nekk suñu gidd ba dugal ñu biir aljanna àdduna nag lu ñu fi soxla yàlla ñu ànd ak moom ba lijjanti ko loolooy ñaan gi macha allah aw daggit la ci mm-hmm. xatbul quraan macha allah mm-hmm. ndax loolu ku jàng alquraan ba noppi da nga ko war a ñaan wala mën ngaa ñaan leneen lu dul loolu mën ngaa ñaan leneen lu dul loolu mm-hmm. waaye dañoo caa dañ caa tegaloon xatmul quraan boo xam ne bii nit mën naa ñaan ñaanu boppam. Mm-hmm. soo seetloo euh, sunu mag ñi. ku ci mm-hmm. nekk bind na ci loo xam ne ñaan gii mën ngaa ñaan xatmul quraan ba noppi waaye ñaan gi mën nañu ko caa teg. Mm-hmm. waaw ñu tuddee ko duwaawu xatmul quraan. mag que suñu mbokk suñu suñu wajur wala xaj Ahmed dem ci Sokone. Mm. ñu ngi leen di jaale alxalifa. waaw euh, bu am solo ci tafsiram bi. waaw bu yéeme sax. waaw waaw. kon mën ngaa ñaan leen incha allah. jërëjëf jërëjëf Oustaz jërëjëf sëñ Saliou ki ci topp mooy soxna Ami Fall euh, soxna Ami nee na ndax jigéen buy julli dafa war a sol kawas wala euh, déet. déedéet. Hmm. buy julli daal. bu fekkee sipp la sol na sipp ba bàcc. Hmm. sipp yu gudd hmm. bu fekkee sér la def na sér ba wàcc. bu dee garam bu na garam bu wàcc. <laughs> ba muur tànk yi fi ñuy sol dàll ci war wi ci kaw. te ñu xam ne nag tànku jigéen ak loxol jigéen ak xarkanamu jigéen gó- góor jigéen a ko niroole dégg nga mm. xar kanam waaw ak tànk ay tànk waaw ak i tànk mm. ñoo ko niroole kon bu ñaan kanam gi mën naa fitnaal góor ak wane sab tànk yi bokku ci tànk yi bokk ci xarkanam bokk ci loxo yi bokk ci wallaay xanaa mu capp-cappal ko la mu fuddan ci yeneen ak ñoom seen yooyu capp-cappal génn na ko ci lim nekkoon dugal ko ci jàpp tànk yi defee ko su boobaa nag génn ko ci def ko ci def ko ci leneen du tànk kese kese déedéet <laughs> moo tax xarkanamu jigéen ak mm-hmm. xarkanamu góor xarkanamu nit la waaw xarkanamu góor ak bu jigéen mm. xarkanamu nit la la dëgg la léegi nag jàpp ne xarkanam bi awar la ba da nga koy muur mm-hmm. boobu moom benn affaire la macha allah waaw am na solo jërëjëf oustaz jërëjëf mbokk moomu ci toppoon di Alpha Diallo Tiwaawoon Pël moom andiwul ab laaj waaye nee na mi ngi bég lool ci émission bi. Alpha ñoo ngi lay bégg ñun tam tabarakala di bégg Alpha Diallo ma lay ca li sikaab mm, <laughs> sunu sunu sunu sëfër. macha yokk wér. jërëjëf Alpha Ali <laughs> macha allah ki ci topp mooy Soxna Faat Diop. Mhm. Euh, moom nee na day laaj ndax ñaari rakkay fajar. mu ne taaye gi dafay ànd ak salaatul ibrahimiya wala taaye kese kese noonu rek lay doon. du ko yàq boo ko ca boole du ko yàq boo ko ca du ko yàq wallaay suwaa la rek insha allah wa mm-hmm. shukran maanaam du ko yàq c'est-à-dire bu ko ci defut wàññiwut dara bu ko ci defut wàññiwut dara mm-hmm. Mm-hmm. te ñaar rakkay fajar moom itam am na solo dégg naa lool moo gën adduna ak li ci biiram la yonti baax ah. moo gën adduna ak li ci biiram bokkut ñaar rakkay suba yi déedéet ñaar rakkay suba bu benn yu fajari kay lay wax <laughs> <laughs> moo moo tax raté ko mm. mbàkk li li tax nit di ko raté lu lu war a yéem a lay doon. wallaay loo xam ne moo gën a waxuñu la moo gën Dakar li ci biiram. waaye àdduna ak li ci biiram <laughs> ah loolu kiimaan la loolu moom kenn wul ko warati. ah allahu akbar. nga def ko bis defaat ko bis defaat ko bis ba def ko weer. Hmm. def ko at def ko ñaari at. ah macha allah. macha allah ñoom yow xam say conteneur gaaree rek. dëgg la si yëpp baax. wallaay waaw yàlla mënu bëgg. wallaay ndeysaan oustaz. Mbàkke yàlla mënu bëgg. ci waaw. maanaam loolu yëpp bëgg tax mu def ko. bëgg nu te bëgg nu bëgg ko waaw allahu akbar moo tax boo xasee ne ashhadu an laa ilaaha illallaah hmm. na ñëpp rafet njort ci yow dëgg la waaw bu kenn waxati c'est-à-dire wala parce que bokk nga bokk yow bokk nga léegi bokk nga de hmm. problème mooy dem yóbbuy bagage ak ñàkk yóbbuy bokk nga hmm. association bi ku jënd carte membre noo def bokk nga bokk nga waaw ah adhéré nga kay ah jeex na <laughs> léegi nag membre actif ak membre sympathisant xaw ma membre lan. waaw loolu euh, président. Salif Sow moo koy lijjanti. Mm-hmm. loolu maanaam yitte nit ki lay doon daal. waaye bokk na moom. man qaala laa ilaaha illallaah. Mm. daxalal janna. daxalal janna. léegi nag ndax da nga yóbbu bagage. waaw ak doo ko yóbbu lay jox li. waaw dugg àjjana ñu lay tàcc wala dugg rek àgg toog mu sell. <laughs> wala raam ba dugg a bërëgu ba dugg ci yam. waaye bokk nga daal bokk nga. parce que ah oustaz mbir mi bu yaatoo nii nag moom jullit day rafet njort lool. Ah. rek ah, xam naa di ñaan xaw foog raja waaye raja ji day daal di lëng lool. kon boobaa waaw Imaam Malik nee na. waaw foo fekkub julit. Hmm. na layal na julit la di ko layal bu muy juróom ñun fukki lay ak juróom-ñeent. ndeysaan allahu akbar. c'est juróom ñun fukki lay ak nga xam ne bu ñu la waxee aw toj penc yu def da nga naan daa juum. wala da koo tëj waaw <laughs> waaw. waaw <laughs> sëñ bu ndaxaa dégg naa boo ñëwoon waaw <laughs> ne ko diwoo sàcc façon diw rek ndeysaan daa baax moom lam cee teg moom bu ree ba noppi waaw ngay daa fexe ba baax rek baax daal moom kenn mënatu baax daal li muy jafe-jafe yàlla wërsëgale wallaay ndeysaan ndeysaan donc loolu mooy àdduna gis nga mbàkke mm-hmm. ab julit mm. julit dafa xaw jafe nag dafa jafe waaw ah bon mat julit gën koo jafe tudd ko kon moo gën a yomb mat ko tudd ko moo gën a yomb mat ko ndax soxol bii mm. bu ci bañ kenn mm-hmm. bu ci soxore kenn mm-hmm. bu ci añaane kenn mm-hmm. ah bu ci tiitru kenn waaw bul bul bul bul allahu akbar aljanna yàlla jële ñun ñëpp a ca xaj kon ki xas ba ne julli laa dafa soxla formation oustaz pour li ngay wax nii nekk ci moom waaw parce que loolu il faut ñu tàggat dafa soxla formation mm. loolu yëf yi moo mm. moo waraloon suñu mag ñi waaw def seen seen tarixa yi pour former ñooñu dëgg la ku ci nekk ak formation ba ko naan def. wallaay ñu tuddee ko ittihaad fi tarbiya. wallaay est-ce que. waaw est-ce que. ba ni ñu xëy ñi ci ñi ci baax ñu xëy baax. dëgg la dëgg yàlla na fay leen. macha allah donc lu am solo la. amiin jërëjëf Oustaz wallaay rafet na te nopp leen a itam. noppale na te dana tax ñu rafetante njort suñu biir bu boobaa ba duñu xeebante. te te duñu nekk ay noonu duñu. àttante boo ko defee nag adduna si ci gën a noppalu. allahu maanaam rafetante njort gi. waaw hmm. Mbàkke. Hmm. boo yëpp. waaw noppalu nga de. yaay da ngay noppalu. ba wóolu leen ñoom ñëpp bëgg leen ñoom ñëpp. billaay point boo tëddee nelaw. waaw xam nga tey ki xëy ci marché bi te jàpp na ñëpp dañ koo contre lu am jàmb boo moytu am na place yi mu du weccee koo bari na fu muy teggi na nu nuyu ko mu ne du nuyoob kese kese jax na <laughs> waaye ki ki maanaam ñu ko yër muy muy wut euh, <laughs> téeréb gémmiñ téeréb gémmiñ <laughs> kenn mësu koo gis macha allah jërëjëf xam naa laaj bi ñu mujjee laajuf sëñ Abdou Mbaye bii la nekk fële ca Italie mhm. euh, ginnaaw bi mu ñaanalee borom bi nee na defal ñu tawféex ak sutura amin laajam bi moom sëñ Abdou Mbaye ma nga jëm ci suratu Ibrahim mhm. nee na aaya 33 te mooy tombeek fa borom bi di waxee naan allahu alladi xalaqa alsamawati wal arda wa anzala min alsamaai maa mhm. fa axraja bihi min alsamarati rizqan lakum mhm. wa saqara lakum alfulka li tajriya fi lbahri bi amrihi mhm. wa saqara lakum al anhaar ba aaye jeex ak wa saqara ya <laughs> waaw hmm. dafa am benn tubaab hmm. bu ñu wax maltuus waaw maltuus moom la yàllay weranteel maltus ngalla moom. <laughs> waaw ah. bëri waay moom li yàlla lay weranteel. Ah, maltus nee hmm. àdduna li fi li li fi nekk daa doyut. mu ngi mel ni ku ne li fi yàlla wàcceel jaam yi daa doyut. mel ni ku bëgg a wax ne. Hmm. kon erreur la. Hmm. te boo fi jëloon avion jëm jidda mbàkke mhm. soo maree da naan waaw dal la jox nga lekk ñaar ñaati yoon da moom koy saayu ne léeg-léeg añ reer ak ndékki bu dee fekk na la fa léegi nag àdduna départ àggagul fa mu jëm mal tuus ne li fi nekk manqué na hmm. jàpp ne ci programme avion bi moo gën a mën a programme yàlla ay waaw ay xalaatam moo jur planning familial cay mal tuus ay xalaatam mhm. dafa am ci àdduna ñu gëm xalaatam yooyu moo jur planning familial ñu gëm ne bu ñu wàññeeku li ci àdduna du doy waaw hmm. wax nag ci débat bi. Mhm. ne ko. allahu la si xalaq samawati wal ard yàlla mi nga xam ne. waaw moo bind asamaan ak li suuf. mi nga xam ne moo bind asamaan ak li suuf. Mhm. wàcce taw. Mhm. génne ma wallaay. tàggat bato yi. wallaay mi ngi wax li def de. ah tàggat dex yi. wallaay. tàggat jant beeg weer bi. tàggat guddeeg bëccëg. lu ngeen soxla mu jox leen ko. bu ngeen doon lim xéewal yi mu leen ko jaxal waaw doomu aadama moo goree di wallaahi allahu akbar te mën a tooñ macha allah loolu la ko tontu innal insaan la zalumun kafaar macha allah doomu aadama moo goree di te a tooñ mel ni ko ne ko maltuus yaa goree di yaa mën a tooñ waaw kon ci wàllu économie oustaz li yàlla lim fii dafa bari waaw li mooy mooy économie nag waaw li asamaan ak suuf meññe di jant bi guddeeg bëccëg waaw jant beeg weer yi moom lan lañ ci jant beeg weer yi ma ne ñoom lu mu ci. jant beeg weer <laughs> jant beeg xamara <laughs> am na solo. <laughs> Ah. jant bi. Hmm. mooy doxal bëccëg bi pour ñu liggéey. waaw guddi gi. Hmm. mooy doxal guddi gi euh, jant weer kon. mooy doxal guddi gi pour ñu noppalu. dëgg la mu ngoog. laylu. ànd ak naxaaru ànd ak xamaru. Hmm. naxaaru ànd ak samsu. dëgg la waaw. lii ne ko ko ak exploité rek danga am ci penc mi dara soo exploité da nga coow ci ko penc mi rek. kenn ku ne di wax. waaw. dëgg la. macha allah mooy indi joow li dëgg la oustaz tubarkàlla am na solo ñu jaajëfal bu baax jaajëfal la yow tam ci tontu yi ak mboolem ñi nga xam ne ñoo ñu doon topp kon li ci tege mooy euh, jaajëfal la bu baax a baax euh, jaajëfal soxna Faat Diallo ak équipe ñoom itam ñi ngi ñoom Pape Doudou ñi ngi jàllale waxtaan wi en direct ci Ali TV waaye bàyyi waa rédaction bi ñu ñëw ànd ak ñun ci xibaar yi ci français ak ci wolof bu leen toxal seen ak déglu ومقلاعا لطفل أو وليد فأنتم